p e d o f i i s t e n d o n j u l i t i i s t a n g o n julli m o m o o d tooy kay e m ma ñëw dégg la m n آل صبر آل أبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك السلام ورحمه الله وبركاته waxoon démb rek sa bokk yi ma doon ci wax moom la ñuy wéyal te mooy li li ñu dese nu nu koy àggalee bu dee fii ginnaaw danoo tànn danoo tànn yem ci ñaari fan yi bu nu sànniwaatee jamra daal di jeexale fii waaye la nu waxoon démb bu lan sàmm doon waxtee bu waxoon ne nan ko def devies te mooy summiku nañ waaye ak di jeexul dañu bëgg ñu dolli ci beneen devies itam bu ëllëgee bu nu demee ba noppi fii ba dem màgg sax ba noppi ba noppi ci aj devies beneen bi mooy aj jeex na waaye mbaax mbaax du jeex aj jeex na waaye mbaax du jeex ci jeexee itam ab jullit moom day jéem a sax cig mbaax rek cig mbaax li nu dese nag mooy lan mooy bu nu noppee fii ba dellu màkka wër bu doon wër bu mag boobu da daal di wër wër kaaba gi war doxaat Safa ak Marwa itam mu dox ko ci ko war a doxaat mooy bu doon def mu defoon tamattu moom dana dox ak Safa Marwa bu defoon ifraad wala xiraan te doxu ko wër bu jëkk ba it dana ko def moom it waaye bu defoon ifraad wala xiraan te doxoon Safa Marwa ba mu wëree wër bu njëkk ba du ko defaat kon loolu moo ci des ci def ifraad bu noppee ci ajam aj moom noppi na umra baaxoo nan ku def ifraat bu noppee ci ajam umra umra jooju nag du farata dëgg la dëgg la du farat du farata sax dama naan ci sunum ngir umra du farata ci ngirum imam Malik waaye yeneen ngir yi am nañu ko def farata ngirum imam Malik it sunna dëgër la ko def kon mooy duñu wax rek ne du farata tax ñu woyofal ko ko def ci faraat baax na bu aj gi jeexee mu dem umra ji ndax ginnaaw am na nañu ko def farata ngir mi ko defut farata itam def na ko sunna su dëgëre dëgër kon ku yàlla may mu ñëw bëgg bi te umra lu jàppandi lu jàppandani ay waxtu rek lay doon kon bu agsee fii duñ ne ko farata la waaye na bu mu ko woyofal di def ifraat bu ajam jeexee mu def umra moo gën moom mu ne rek du farata bañ koo def bu ñëpp noppee itam ba ñibbi rek des ci bëgg nañ kenn ku ne mu demaat wër kaaba gi wërub tàggutoo wër boo xam ne wërub tàggutoo la loolu dañ naan képp ku jóge Màkka sax dañuy bëgg mu def ko bu aj si woon ak bu omra si woon ak ku fi dëkk sax buy tukki dañuy bëgg mu dem wër kaaba gi wërub tàggutoo kon mu dem ba yitteem yëpp jeex ba ñibbi des ci danañ bëgg mu dem wër kaaba gi warul tàggatoo wër boobu itam ba de ci ngërëm imam Malik àggul ci doon lu war ak am na nger yu ko boole ci aj yi boole ko ci lu war nga ne ci yeneen nger yi am na ci yooyu bu ko defut day am lu ko war ginnaaw nag am nañu ko àggale foofa sunu ngir àggalewu ko foofa waaye nag am nañu ko àggale kon moom it du jar jox yitte la muy wër bi nga xam ne wëru tàggu doolee doon su fekkee dem nañ ba suñ lépp suñ lépp jeex al imaam Abu Bakr laaya jim tàmbalee tey yàlla da ciy wax ne aj ji aayut aayut aayut ñu ciy defaale commerce aayut ñu ciy defaale commerce waaye waxit ñu rek dañ ciy dégg ne kon ku ci def commerce it nag waru ko yàqal waru ko yàqal ajam am na nit ñu bari nag jamono yi day mel ni seen yitte dañ ko jëme ci loolu ñuy jaay seen yitte yëpp ñu jëme ko ci li ñuy jaay ñi jënd itam seen yitte yëpp ñu jënd su ci yàlla def ne aayut aayut di ci wutaale di ci wutaale njariñul àddina muy ci jënd ak jaay waaye bu ne aayut mooy kon waruta yàq dara ci li nu tax a jóg dëgg-dëgg ci jaay itam bu fekkee dafa aj si jaay bi bu ko yàqal ajam liñ war a def ci fan yi te mooy tudd yàlla ci ko fàttaliku am njaayam bu ko ko yàqal ci jënd itam am jëndam bu ko yàqal liñ war def ci fan yi ak di ko fàttaliku nu liñ doon wax ci njëlbeen ba léegi itam te ñëpp wax ab yar ab yar da cee nekk nit ku ne da cee war a mottalil boppam ab yaram yar bi jëm ci muy doxale digganteem ak boppam nu muy doxale digganteem ak moroomam ak nu muy doxale digganteem ak moroomi bindeefam yar boobu itam dañ dañ caa war di wéy ngir buñ ci génnee am ci ab yóbbal bu ñuy yóbbaale soppi ci ndax yar mooy soppi ñu ne yar soppi lay firi soppi ci nit ki aw defiin wala aw doxin wala jikko kon ku aj ba noppi war na cee jële jikko ju soppi ku gën a baax gën a baax ci ni muy jëflanteeg nit ñi ni muy jëflanteeg boroomam ak ni muy jëflanteeg boppam kon ku aj ba noppi te ni ko waxee woon yàlla lim jige ci aj da wékki ci dara du ko wékk ci dara mooy dafa condition condition bi mooy li mu waxoon ne kuy aj bu mu ko def condition mooy mu bañ a def loola yooyu mu tere woon liñ tere kii aj bu fekkee bàyyi na ko mooy tax mu am jéggalug yàlla ba mel ne kuy door a judd mooy tax mu ci àjjana ndax yonent bi ne aj bu jub aj bu jaar yoon àjjana rek kay bayam beneen xaddis nag mën na da caa jaar yoon boogee mooy lan mu wax ne ku aj te déggu ca lañ koy tere ci wax wala jëf kooka buy dellu day set ci ba mel bi door jub loola kon nu bàyyi ko xel ba tax am ñi borom xam ñuy wax sax na bokk na ci màndarge aj ko nangu nit ci aj ba dellu ñu gis ne soppiku na ñu gën a baax ak wattu yàlla gën ak ragal yàlla gën na am loola day firndeel ak ajam nangu nañ ko ndax yonent bi dafa wax ne ki ki mel noona ci ajam kooka la nangu ak ajam kon loolu jara jara bàyyi xel la imaam Daawud Daawuda Dramé ci bëccëg wax na fi engagement yi aj jël engagement yi aj jël engagement bu aj itam li don doon wax ne nañ def devise ne bu aj bi jeexee itam ak mbax jeexut moy engagement yoy nit ko ne fu tollu da ko wadi baye xel sa bu naree bàyyi bu mu jëlone engagement ne da koy def bu fatali ko engagement bu mu jëlone sa bu naree def bu mu jëlone engagement ne da koy bàyyi mu fatali ko engagement bu mu jëlone lolu moy tax nit ki bu jógee ci aj gi amal ko ñor adina lu jiitu njariñul àllaaxira di ñëw njariñul àddina li mooy mu soppi mu soppi jikkoom soppi doxinam soppi jëflanteem ak nit ñi soppi gépp nag jëm ci gën a baax muy gën di baax nit du mat nit du mat ak mat dafa ne ci kaw nit di di ca jëm day taxa di ko gën a jege waaye nit moom duñu wax ne day waaye nag ku ne war nay fexe di gën a jege di gën a jege ak mat mooy jëm ci mat rek ci wàll yëpp ci jëflante nit muy lu ama am solo nag jëflante nit ñi day lu am solo waxoon nañ ko fi ne yàlla jéggale bàkkaar bopp dafa dox diggante nit ñi mooy àq ci nit àq bi nit amee moroomam yàlla du ko jéggale sam amel àq rek moo koy mën a jéggal te bu ko ko jéggalu fii fi àddina du nu séentu mu jéggal bu ko bu ëllëgee te bu ëllëgee nag ñuy fayee àq yonente bi dafa wax ne ñaar rek lañuy ñuy fayee àq bu waxee ko ci anam bu doy waarit dafa wax ne ndax xam ngeen xam ngeen ci fayit fayit fayit mooy koo xam ne day jaayee ko jënd gis nañ mu mel ne am na na alal waaye ay boroom ay boroom dafa ëpp fuuf la mu amee ñi mu ameel bor buñ ko taxawoo rek dañuy jaay lañ la mu am lépp faye ko bor yi kon mooy amul dara dëgg-dëgg ñu ngi gis mu mel na ko am waaye ay boroom dafa ëpp li mu am bu masalaaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen fi fayit ñu wax ko liñ ci xam te mooy loolu mu ne leen jubluuma loolu fayit bi jara dëgg dëgg dëgg mooy fayit àlla ne sayid àllaaxira mooy nit koo xam ne def na jaamu yàlla yu bari def na ay julli yu bari def na ay woor génn na asaka jëf na jëf yu baax yu bari kon day mel ne am na am na alal waaye ba muy def loola it ma ca boole woon nag di tooñ nit ñi di leen amee di àq di tooñ di saaga di dóor di xaste di tooñ nit ñi bu ëllëgee li mu defoon ci lu baax mi ngi nii waaye nag tooñim tooñoo ñu dafa bari ñu di ko fayu niñ koy fayoo nee na dañu jël ci ay tuyaabaam mooy yu baax yi ñu defoon dañu jël di ko fayee ñu mu amee doon àq di leen ci fay di leen ci fay di leen ci fay bu jeexee te li amee ci àq jeexagut ñu jël ñam amee ñuy jël ci seeni bàkkaar di ko ko sëf noonu la ko waxee ko sëf nee ñu ko koy sëf di ko ko sëf ba buñ ca noppee jël sànni sawara rek lañ cey def ndax amul feneen fu mën a jëm bàkkaar yi la yore moo tax ak jara moytu ak ak ci bindeef jara ndax mën na noo baalante ci àddina waaye àllaaxira moom baalante ko yombut yombut ndax nit ki day aajowoo lu mu tuut tuut tuut ci lu baax koy aajowoo te yii am ci àddina it sentiment yii am amut foofa ay baay ak doom ak yooyu yépp amul foofu ginnaaw sax baay doom da koy seen muy daw ndax ragal ne mën na koo toppee am borom kër da koy seen muy daw kon mooy foofa ku fa amee ni àq rek euh, séntu wuñ mu baal ko ko kon li ñuy war a def mooy moytu moytu yi lu jara jara jara moytu la ndax nit mën naa bari jëf yu baax waaye àq yu bari mën naa tax bu ëllëgee jëf yu baax du ko jëriñ dara ndax dañ koy fayee àq yi mu ameel yi mu amee doon àq mën nañoo jël sax ci seen jëf yu bon fekkee lam leen ameel jëfam yu baax mënu koo fay mu jël seen jëf bi bon di ko sëf kon bu jar a bàyyi xel la luñ jublu ci loolu lépp rek mooy li ñu war a jële ci aj gi ba mën a soppi sunu sunu jikko soppi sunu doxin soppi sunu jëflante ci sunu diggante loolu rek lañ bëggoon a yokk ci waxtaan wi nga xam ne démb ba léegi ñu ngi koy def te mu jëm ji lii des ci aj gi nuñ koy mottalee

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته